bokk yi gannaaw bu ñu sante suñu boroom julli ci yonentam ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nañu yàlla boole jéggal ci fan yi daaw tolloon nañ ci tàggoo ak at mu yees mënu duggoon daw si mu mel ne bu ñu ca tolluwaatee waris naa xoolaat weer yi ak bis yi natt ci suñu dund ak adduna ji nekk di ko ci bañ jant bii nga xam ne mooy fenk ci penku di soow fa sowu ba ku ci jàngul dara diir ta waxam bokk yi penketeer jant ak sowu jant li muy xamal nit ki mooy àdduna ji nga nekk dara sax fi ndax day fenk di tàng di tàng ba yàgg mu tàmbali waata sedd kon sedd tàngara way dem na sedd ba dikk diggante boobu lu fa way defutoon dutu ko fa def bu buñ ko gënee jegeel bu ñu séentu aw weer ñii dañ koy gis ñii duñ ko gis ñi nga xam ne yàlla may na leen ay gët yu leer mën nañ ko jëkk a gis waaye mën nañ ko mujj a gis kon du doonul lu ne fàng waaye su waxtu wa dellusee ci suba sa néew ni ku koy wan moroom ja te fekk am nay gët noonu lay def ba xëy mat sëkk mel ni ab layu waaye layu ba nag kara ba mu feeñee ba ba muy mel ni ab layu ku tumbalu jekk lool leer nañ foofa yi lu fa waay mu yóbbaale ko ko jeex na bu ñëwaat fu muy tàmbalewaat day tàmbalewaat di wàññiku waat bañ di ko wanantewaat moo ne loolu saa su nañu ko gis suñu kër yi danañu gis koo xam ne kii day kallaw kallaw dong lay man ak jooy ak nelaw ka ko yore sax day xëy rek gis muy jéem a toog ba yàgg muy jéem a raamal boppam kenn du ko ni nii ngay raam ba yàgg kat moo ko daan jógal jéem a taxaw kenn koy romb rek mu jàpp si ba yàgg mun a ñof kat di daanu ba yàgg mu ne muy demal boppam ba xëytal ni ñëpp ba yàggaat mu tàmbaliwaat lu nekkam di metti ba mu xëy xëy na laaj lu ci mën dara te fekk ñu ngi dund kon diggante yu gàtt la yoo xam ne day nuru lu ñuy taqar ci mu sori lool am na si ñooñ boo koy wax dañ naan ñoom ay ndaw lañu bàyyee ko fi léegi taxul ñuy wax axakay ndax bu ñu demee ci tërëf suñu son bi boobu suy wax bay tudd ab dig danaan mag day dem góor day dem jigéen di dem mag di dem ndaw di dem ku dul mag di ndaw di dem kenn ku nekk nag na xool xam ca doon loolu nag boo ko gisee ci nit rek boo gisee nit ki mu xëy xëy dij ko mu toog fan yooyee jàll te mënutoon dara manqué na ci ab dundam donte ku ndaw la ku mënagul dara ndax la dem du leen si waat moo tax suñu boroom suñu dund gii joxañ nañu ci yaar yoo xam ne nee na ngeen baal ko xel bu baax ndax nit dana nekk ci àdduna di kër këri ca yooya ba xëy ba àdduna xëy jeex tàkk boo laajee lu mu fi def duñ la ko mën a wax moom moom moomee boo ko yeewoon na ko loo fi jot a def ci adduna du la mën a wax dara lu may waaj bu ñu demee ci alxuraan dañ ci fekk ëpp na wenn yoon waalamu annama amwalukum wa awlaadukum fitna yaay rek la fi ñu duwut dajale alal ñi amagut naan dama bëgg daa bëgg a tabax kër daa bëgg a samp ko su sampee kër ñaata nit ñooy ñaanlu ak njaboot ñiko ko amagul ñëpp yàlla nañ ko yàlla jox ñi ko nak ñiko ko amaka neew yalla ko yalla dool ci barkal waye day melni yar yoy mo fi soxal bu njaboot taxawé yi lu dul njaboot ga moom du taxaw mom lu mëna taxaw du taxaw nak man na nar gañ nit ba ak dum xey jeex ta du xam lu fi defal yalla lu fi defal nit moo tax suñu borom téré na lool talal loxo ngir lan ngir nu sottal nu mu taxawale dara taxawal dara dañ cay fekk ni dimbale ko waaye taxawalal nit dara bam na jonn mu téel ko ko yombul moo tax mu ne bul ne xàjj nit ñi rek di ñeetaane ak di ñaanaatu ba sax ngor dem ba far ngor jeex tàkk ci nit ki yàlla nañ ci yàlla musal ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسناهم فيه ورزق ربك خير وأبقى كون دفع أمر الله يؤندنو في مي جامو في يالله dañ koy fàttali di ko fàttali di ko fàttali waat adduna ji ñu nekk di fi jaamu yàlla jot naa ciy tënk tuuti waaye ab gaawaayam day mel ni keroog suba keroog suba sax daa mel ni keroog ngoon a ko tane wala seen tenente amul solo keroog suba bu mu dëll ba mu ba nga toog fa defe ne am nga foo toog bu ca kanamee tuuti nga ne fànn ki naaj waaye keroog ngoon li muy mel ne lu tànn ndax mooy gën a yaatu fu muy jëm ci lëndëm day jëm dootoo liggéey wala bu ñu ko mënee niroole ak ñondoox ñondoox kuy dox bëccëg ci tali bi léeg-léeg mu siin foo xam ne day defee ndox a nga fa takk ndara baa garab yaag lépp luy génn mel ni ab taataa waaye su ca àggee duutu xàmmee sax fa mu doon seeni ndox borom xam-xam noonu lañ tënkee àdduna noonu la àdduna la la nga seen rek ngay dëgg man wutali ko ba léeg-léeg nit ki tàggale ko ak ngorom bu demee dafa fekk dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa romb gàtt boo xam ne daa métti ñu sànni ko mu dem ba di ko romb lépp ci adduna am njàngat la kenn wërta romb lenn lu ndul xam jéem a jànge dara wala mu laajte ko ba mu ko rombee taxaw wëlbatiku ñam àndaloon ñëpp walbatiku xool fa mu jëm xool fa muy xool mu ne leen gàtt bii day xanaa yàllaa ko jël ñu ne ah kay mu ne da koo jël waaye jarewewu ko ci yoxoy nit ñi ren di wuñ ko dañoo koy fay fekk mu daal ñu ne ko lu wér la mu ne lu ko indi fii mu ne ko ñu ne ko ay waram waram waram dañ ko soxlaatu ndax xurrimat alaykum almaytatu waddam wa lahmu alxinzir mu ne kon de xanaa amatul solo ku ko doon jaay du yar de ñu ne ku koy soxla ba di ko jënd ab jul sax du jënd medd si mu ne gis ngeen nii ko ña ko moomoon nakkale solo ba sànni si ko fii ba mel nii mu mel nga xam ne ku jub bu ngelaw li jëm see fi yow nga faq say bëkk say bakk ñu ne waaw mu ne ni àdduna li ci biiram lépp lii sax moo taneel yàlla la àdduna li ci biiram nii boroom gàtt bi def gàtt bi noonu la yàlla def àdduna daan ne su fekkoonte ne yàlla daa su fekkoonte ne àdduna dañ ko yàlla da ko jël peese ko ak yow laafum yoor bu ko fonkoon ba di ko peese jox ko xëyma boobu su boobaa ku gëmul yàlla du fi am dara ndax jullit la koy jox waaye loolu yoru ko du ko jël sax di ko peese ak laafam yoo ba di ko jox naan am na am na benn diisaay bu mu war a gis kon bokk adduna du dara dal ne moom yonent bi sallallahu Nimko ko melne ñi ngi melne ku war ku xey war dara wala mu dugg dara bu dé suñ jamono ba naaj bi tank jir mu yendu ci kër garab ba kër ga sedd muy dem falay lay bàyyi garab ga falay lay ñax ma fa fek falay lay bàyyi ya falay lay yenn ya lam fa andi won rek la fa yitt la fa diko dox ci muy kerlu ca ga gontu jot na mu gontu bàyyi fa garab bi bàyyee ko keneen misaaloon la ko it ci ne kuy dund ci àdduna su xamee li ko fi indi woon daf fi jàppe boppam ab doxandéem ku ne xam na ne ku dem ci àdduna bi fu bari ña fa amagul kayit ñooy gën a góorgóorlu ci liggéey ak moytu ndax saa su nekk dañ koy wax kañ ngay ñibbi te xam na ni saa su ne mën nañ koo jël yóbbu ko mu ñibbi moo tax bi tukki tàmbalee ñàkk solo mooy bi ñu tàmbalee joxe ay këyit nga def na dañu la dimbale déedéet dimbale wuñ la benn du ma ci sori waaye daal ku xas ba am këyit tënk nañ la moom ndax léeg-léeg mu bëgg a jeex ñu la day des bu diir nga soog koo indi ñu seet ba xam danañ ko yeesal waaw wala déet laaj la ji la laaj lu bari ba noppi itam mënatoo leen rëcc kon li yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon mooy dellu si waat ku ne ci àdduna da nga jàpp sa bopp ku dem ci réew moo xam ne ab doxandeem nga fa te amoo fa kayit amoo fa dara clandestin nga ku ne xam na ni clandestin yi ñoo dàq liggéey ñoo dàq ndax xamuñu kañ la ñuy tasee nga leen di yóbbu ñu yóbbu leen ku jàppe noonu àdduna nag da fi def dara danga nga fi bàyyi dara te it doo fi bàyyi lu ñu lay joxaña kon fi dunya ka annaka gharib aw aabiri sabil aabiri sabil mooy ñi di romb Tuuba di dem ba ba nga koy génn da gis yoon yi tàlli yu si bari bokk yu ci yàquwul rek day tàlli rek leer nañ boo ko jaaree guddi doo xeemeem lu dul wàcc ci dëkk bi waaye boo ko xeemeemee def ay ndax taxalu woon a jóg saw yoon fi jaar rek ngay dem moo tax bi Sëñ Abdul Ahad di soog a tàmbalee tere di ko fësal ca kaw جفندكو آية بوسي برم وخو ينتبه صلى الله عليه وسلم فاسدع بما تؤمر ليني ترى لك وحكو نيب خمكو كوكو دفتي بنكو تكي لخو مخم لنكو تكي لخو أم نكو في رمبون يور ليني ترى غاية نكو لينك مونة ماكو مونة موكو مون مون خنا في مونة ياغي دك سانغام مونة خو موكو وات بيمو دوغ دونغا في دار كوكو فيرنا حديث ينتبه صلى الله عليه وسلم dëkk oto baa fa jaar rek xamutu ne dana fa jaar xam na ko wala xamu ko loolu daal la wax ñu dégg moo tax suñu tubi sallallahu alayhi wa sallam ne koo xam ne adduna koo xam ne àllaxira mooy soxlaam moo ko yitteel ñëwuñ nag bu kenn wut dara bu kenn bëgg dara lu baax ah kay wabtaxi fi ma ataka allahu dar al axirata wala tansa nasibaka min ad dunia yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na koo xam ne àllaaxira dong dong mooy yitteem mboolem ya nekk àllaaxira te neex tey ci bakkan yàlla daf ko koy fóonal ba mu ginliku ko du soxla li ci atum doonte nag mën nañ ko koy yët di ko jalal mu ne gàññ gàññaar waaye gisatu ko ndax fële lay xool yàlla daf koy xeeñal xet ya wan ko ay yu bari yoo xam ne yii dara jëraldu ko xool jëraldu ko xool li na ci kaw suuf si kookee nag la gars yi di wër dañ ko koy jalala jalaal ba mu ne gañ te fekk gisu ca dara waaye nag lu néew la ci suñu jamono nag waaye nee na koo xam ne nag adduna kese kese la soxla mën naa am xet yi ci adduna xet gu ci nekk man ko ub ca magasinam ñam yaag yañ fay wax ja waaye lu mu ci am na la ca des doylu gi ne ci nit yàlla da koy tàggale loolu nag moo tax moo dox digganteem ak taxawe santaane suñu borom ba bu fi bàyyi ko di dem kenn du ko nettali lenn lu mu def ci lu baax dañuy wax bu rafet rek ndax jaamu yàlla gii gën a fés nga xam ne ñépp xam nañ ko koy def nu mu koy defee moom la jëkk teg teg nee ca teg ba yar ñu ca doomu sama kon bok sa bu fukki wer ak yar dikkee bay dem kenn ku nek na xol bopam xam fukki wer ak yar ñu ngi dem ci dund du delu ci wat mi ngi dox jëm ci tële dox jëm ci wéradi dox jëm ci magat dox jëm ci réccu réccu am nañ fañ tok ku leen fekkone lu ngeen gëna bëgg te ñu ngi dund sax dañ nan yalla delo leen ci ak ndaw ndax xam na nga dañu weesu dara déggu ca waaye lu dem de du dellu si waat la sëriñ bi misaaloon ci ku dugg saxaar nee na da di jàppee adduna ni ku dugg saxaar booba saxaar a ngi daw ci biir réew ne bi ngeen toog ba yàgg ñoo tey la altine ñu ne ah kay ñu ne ba yàgg ñu ne tey la waat altine ñu ne waaw mu ne altine joo gis jann la yëkki jëkk fekk ci dundam rek la mooy altine jëkk des yëpp yenn janeen la tudd ndax suñu ngeen duggee saxaar du ngeen romb ak sumpu ba yàgg ngeen rombat beneen ñu ne ah kay ngeen ngeen dik romb mo tuddu sumpu sump eke dess gannaaw eke dess geneen sumpu la tudd ta dem na fu delu ci wat man nga fa rombat ay bis ngay ci wat waye jaaroon nga fa jeex na jaar googu yàlla bind na ci lam cey bind lañ ca doon def jàll mo ñu wat dan ne الصراط المستقيم nag bi yàlla santaane ne anna wa anna hada siraati mustaqiman fattabiuuhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله موي توغو بيغا توغ تفاي كو بنوبي توغو بيغا فاي نينا سوني نوب بو وقت جوري بوكو مالا جولي جولي كو بو امي فياب سو اموت تخم في خبل فيتي نتا خو جولي نينا سوني ديغ توغو بو مالا يوب فنجم دونتي موم جيغور فيم توغ واي ليم دوغ مالا دوخ kon bokk ñu bokk waaj xam ne tabaski gi ak aj makk ak ren ku ko defutoon moom jeex na mën naa aji déwén wala mu tabaski déwén yàlla incha allah boole waaye weer tabaski bi ci boppam fan yu néew mu tàggoo noonu muy tàggoo nag buy dem faaw mu yóbbaaleel nu gan moom mën na sa ko tere lu nekk ba mu des doo ko fi xamee mën nga ne doo fi wax wala doo fi jëf waaye doo fi xam moom kenn mënu ko tere gan ndax ay jët la yor di moo tax ba adduna bay dem nañ xool ak moom lu ñu ci jot a na waaw wala déet su jagee la ñu koy xamee mooy loo xam ne ba nga koy def ba ñëw ko la ca fekk ba ñëw ko ko nekk la ca jagut mooy loo xam ne ba nga koy def da ngaa dugg fi barab tëj buntu ba làqutuwaat léeg-léeg lu yëngu nga defe ne lu lay yër si la su boobaa tegg sa tànk te xam ne jagut yàlla na yàlla dafa dëgg topp te bokk boole nit koy fekkee weer wi déwén te fii ba muy dee si waa déwén bi ñu def yàlla na ko suñu borom la yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina